asalaamaaleykum mbokk yi ñu dalal tey Moustapha Mbacke di taskatu xibaar xelam màcc ci wàllum communication publique ñu war a waxtaane li xew Touba ci élection locale yi ñu génn ban jàngat ngay amal ci élection locale yi ñu génn. waaw jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi lay euh, nuyu lu bari waaw jàngat bu njëkk bi ñuy def daal mooy sant yàlla bu baax ndax élection yi jàll na ci jàmm. Euh, élection yu bari woon coow la bari woon tension it lool waaye nag euh, élection moom noonu la baaxoo ci réew mi ci Sénégal Touba nag day dëkk bu am solo lool ci réew mi li ko waral mooy ni mu toll ci wàllu démographie ni mu toll it ci wàllu yaatuwaay ndax li aju ci moom ci ay ci ay dëkk waaye it ni mu toll ci diine ak ni mu ni ni ñu tënkoo ci ndigal tax na saa bu élection jubee ci réew mi da yitteel lool ñi nga xam ne ñooy xëccoo ci wàllu ci wàllu politique muy politiciens yi yitteel it ñi nga xam ne ñooy xalaat ak di jàngat ci wàllu élection euh, élection locale yi nag gis nañ ne élec ginnaaw bi ñu joxe euh, résultats yi bëri na coow lool ci Touba ndax euh, Touba ñëpp xam nañ ne élection locale naka jekk benn liste lay am waaw liste bi nag dafa mel ne ren ji population wu Touba dañoo dañoo ni élection yu soppeeko nga xam ne euh, suffrage suffrage direct lay doon maire bi dañ koy tànn directement xam nañ kon ne ki kan moo war a nekk seen maire ginnaaw bi nga xam ne ni euh, maire sortant bi moo jiite liste liste bi kon xam nañ ne kon maire sortant bi moo war a jiite seen maire kon dafa mel ne ñoom ci liñ mën a jàngat euh, ci saa si mooy waa Touba moom ànduñ ci ki nga xam ne nii moo fi nekkoon ci maire war euh, a war a war a yoraat euh, seen seen commune bi loolu daal mooy jàngat euh, bu njëkk bi xam naa dañ ci gën a xóot. lan moo waral su élection locale amee benn list rek mooy am Touba. waaw list unique bi nag moom dafa am histoire ci Touba ñu bari nag boo leen déggee ak élection yi dafa mel ne liste unique bi ren lay doog a am. dafa mel ni it euh, wala boog bi mu amee yàgg Touba yàggul may fàttali ne Touba bi mu nekkee communauté rurale 1976 ba nëgë ni ba 2022 élection 2022 yi naka jekk benn liste moo fi mës di am 1972 euh, ci lañ créé ay communauté rurale ci ci Sénégal ñeenti at rek lañ ci topp sëriñ Abdoul Ahad Mbacké mi fi nekkoon daal di sàkkoon ci régime euh, socialiste yi fi nekkoon président Senghor pour ñu ériger Touba en communauté rural mu teg ci nag condition ne euh, ni ñu war a tànnee président communautaire ci yeneen dëkk yi nag du bokk ak niñ ko war a tànnee fii ci tubaa ndax Touba nag fii ci tere politique li tax ñu fay tere nag mooy li politique di jur euh, ci Sénégal te ñi koy gis muy euh, li muy àndal ci ay xeexoo ci xiroog ŋaayoo ak xeex ak di waxante yu ñaaw léeg sax ñu egg ci ay bakkan di ci rot loolu nag xëy na mën naa bañ a def ay jeexital ci yenn dëkk yi waaye dëkk bu mel ni Touba nga xam ne benn famille rek la loolu bu fa amee faw mu def ay jeexital loolu nag la sëñ Abdou doon bañ euh, moo taxoon ñu tere mboolem activité politique ci biir Touba lu jëm ci meeting campagne électorale ak yu demee niki noonu euh, bu élection locale jotee nag ñoom ñoo daan euh, bi mooy tànn ñi nga xam ne ñoom ñoo ko joo ko doy ànd kook ñi ko war a àndal yépp ci Touba muy waa njabootu sëriñ Touba ak yépp ñu ñu xool ñi leen doy. ñu yóbbu leen ca euh, commune ca mm, ba bu ko defee sëriñ bi tànn président bi nga xam ne moo war a jëti institution bi loolu nag noonu la mas di doxee mm, soixante seize ba deux mille vingt deux gii donc changement amu ci changement mi ngi commencé am ci biñ commencé ne euh, il faut ñu organiser élection ci Touba liste indépendante yi booba amagul woon kon léegi faw benn parti porté Euh, liste bi loolu nag mi ngi am en deux mille mi ngi commencé am en deux mille en deux mille deux ak euh, président premier ministre ñoo ngi fàttaliku sax ne euh, liste booba jéemoon nañ cee def turu Serigne Saleh Mbacké mu fi nekkoon xalifa général des suñ borom mel na suñu borom yokk ay leeram waaye jàllul ndax sariñ Saleh moom ni ni ñu ko exposé problème bi mu jàpp ne lu ñu war def Touba moo ko war waaye ginnaaw bi nga xamee ne biirum politique la dañoo génn turam lool nag ci lañ daal di utee nag comme élection am na. ñu ut beneen liste boo xam ne dañ ko tuddee vote blanc liste blanc mu mu nekk ci wet gi bu ko defee électeur bi su ñëwee su àndul ci list biñ proposé it mu mu voté euh, vote mu def vote blanc loola euh, mooy am 2002 ba 2023 gi kon changement amu ci li ci particulier rek ren mooy xam nga xalif général bu mës a ñëw ki war a jiite communauté rurale bi wala nga jiite maire bi moom moo koy tànnal boppam loolu Euh, ci sëriñ Abdou Lahad Mbacké ba ci sëriñ euh, Sidi Mokhtar mm, lim bi ci mujj nii nga xam ne mooy mille bi sëriñ Mouhamadou Lamine Bara euh, génne àdduna yàlla suñu borom yokk ay leeram moom it ki mu fi tegoon maire muy sëriñ Mourtada Mbacké di doomam ci saa si dañoo dañ ko fay jëlee sëriñ Sidi Mokhtar ñu daal di fay teg mm, Abdou Lahad Kam mii nga xam ne moo fi ne. sëriñ Mountakha nag bi mu ñëwee moom ki fi fekk muy maire da ko fee bàyyi jëlewu ko fi euh, ja jamono yooyu sax ñu baree bari ñu ngi doon xaar ak coppe ak changement am ci loolu ba yenn tur sax ñu ngi commencé woon di circuler wu ne xëy na moo war a remplacer Abdou Lahad Ka waaye moom giseewul noonu. kon kooku maire boobu moo fi nekk ba nga ni ren jii it biñ demee ci war a def list niñ ko daan defee euh, bi yoon moom sëriñ bi dugal ci loxoom boolewu ci kenn it dañoo def liste euh, déposé ko comme niñ ko daan niñ ko daan defee euh, waaye du sëñ bi moo tànn liste ba du sëñ bi it moom moo euh, désigné ñi nga xam ne ni ñoo war a nekk ca ca liste ba loolu nag bu amee jàngat biñ ci war a mën a am rek mooy kon lii am tubaa ci vote blanc kon lu lu lu yenu maanaa lay doon lu raisonnable ndax dañ naan comme sëriñ bi moom tànnul mais maire bi mu fekk soppiwu ko tànnul maire maire waxuñu ne tan euh, liste bi mooy sama liste waxuñu ne diw sàngam mooy sama candidat kon dafa mel ne bàyyi na ak nit ñi waa Touba ne leen exprimer wu leen seen choix ci ci ci élection yi loolu nag moo waral comme waa Touba ñoom gisuñ seen bopp ci maire bi fi ne te amuñu possibilité tànn maire ci ni élection bi demee ak liste unique bi ñu daal di def seen seen vote blanc euh, loolu kon mooy expliquer euh, vote blanc yi nga xam ne ni am na. nan ngay jàngatee vote blanc bi am ci élection yi. waaw jërëjëf sëñ Xadim vote blanc bi nag mën nañ koo jàngat ci ay angle yu yu wuute maanaam am na loo xam ne xëy na nguur gi lay concerné régime bi ci ne am na loo xam ne ni mairie bi ci boppam lay concerné am na bi loo xam ne it waa Touba ci boppam lay concerné li concerné nguur gi tax vote blanc am Touba mooy ko dañoo seetlu ne depuis mille 2014. élection locale 2014 ba nëgën si élection yi fi jaar yëpp régime actuel bi dafa perte Touba maanaam gañewul Touba locale 2014 référendum 2016 législative 2017 ak présidentielle 2019 élection yooyu yëpp Touba da ko perte waaye li li ñu seetlu mooy euh, dafa mel ni ñi nga xam ne ñoo féete ak nguur gi euh, jàngat bi jàngat bi nga xam ne moo war ñu jàngat ko lu tax défaite yooyu di am Touba dafa mel ni amul ndax dafa mel ne bi 2014 bi mu bi bi élection yi jàllee seen jàngat wala seen analyse yi ngay dégg yëpp mooy waa Touba dañoo contre le président Macky Sall wala waa Touba wala Mouride bokk d'une manière générale dañoo contre le président Macky Sall may fàttali ne en 2012 élection locale de élection législative juin 2012 président Macky Sall moom moo gagné Touba mooy député ñoom Serigne Galas Kolto Mbacké ak soxna ñoom soxna Maam Xari Mbacké ñooñu kon ñoo gagné woon kon 2012 waa Touba le président Macky Sall moom la ñu àndaloon ca législative ya lan moo fi soppeeku nag ci diggante bi diggante 2012 ak 2014 ñaari at ba élection locale 2014 bu mu egsee waxuma la euh, perte Touba rek département bu Mbacké waaye dañoo perte département bu Diourbel ak Malick Fall perte département bu Diourbel bu Bambey ak Soxna Aïda Mbodj loolu nag jàngat la boo xam ne nii lu ñu waroon a jàngat la xool ñaari at yi lu fi xew lan moo xew diggante Touba ak ak waa régime bi fi ne ba tax ñu ñu jël position bu mel nii waaye eh, effectivement ni ma ko waxee naka jekk jàngat bi du xóot ci ñoom nañ koy jàngatee ba tax na élection locale yooyu gis ne bi mu jàllee responsable euh, politique yi nekkoon Jurbel te amoon ay responsabilité ci état bi ñoom ñëpp dañ leen a dàq pour sanctionner leen loolu nag yaakaar naa jàngat bu bu bu simpliste la boo xam ne nii loolo mooy wéy ba nëgën yi ba tax ne élection yu ñu dem rek defet bi day gën a day gën a day gën a bari biir Touba bi ci desit maanaam maire bi maire bi lay concerné mooy maire bi Touba waa Touba dañu yëgul ne mairie am na am na Touba maanaam njëriñu mairie lañ yëgul ndax gis nañ ne li wari mairie bi war a def ci biir Touba dafa am ñu substitué wu di leen ko def di ko def à leur place muy lu mel ne Touba ca kanam ak mbooloo yu mel noonu daayira yu mel noonu nga xam ne ñi ngi biir activité yi xaar maire ci ñoom lañ koy gisee muy defar ay yoon defar ay ay ay case de santé hôpital wala inondation am ñu taxaw ca loola ci maire bi lañ ko yaakaare waaye dafa mel ne am na ñeneen ñu jóg di ko def bi des mooy sëriñ bi xalifa général des mourides moom it gis nañ ne saa su jafe-jafe amee Touba moom mooy génne alal ca def lu mel ne bi lakk lakk lakk gi amee ci marché Ocass mu mel ni aussi lu mel ni aussi bi mbas mi sonalee waa Touba lool te gis ne ñu bare bari dañoo tëdd ñu jël leen en charge lu mel ni bi ñu defee couvre-feu te kenn mënta dox muy dimbale nit ñi ah, loolu nag moom ci sëriñ moom naka jëkk noonu lay doxee ndax moom moo fi nekkal sëriñ Touba murid yi ñëw ci moom la ñuy ñëw eh, di di ko jox seen seen i addiye mu di ko defaat ci dëkk bi waaye Touba mairie bi da dadul mairie bu ndaw dafa nekk commune boo xam ne nii marché yu mag mag dañoo nekk biir ay événement yu mag a mag a di am ñu koy organiser daanaka ci année bi yépp ci biir Touba euh, amit ay entreprise yu nekk biir Touba di liggéey euh, banque yaak assurance yaak yépp ña nga fa mairie bi di ci gagné te gisuñ benn taxawaay boo xam ne nii mairie bi am na ko ci biir dëkk ba wala boog bu fekkee ne ñeneen a ngay defit mairie bi ñëw di defandoog ñoom wala ñu ñu sentir ne ma ngay ma ngay jëf loolu tax ne ba Touba kenn kenn kenn yégul maanaam population Touba yëguñ ne maire la léegi ne mairi am na léegi nag bu ñu eggee ci élection am ñu ne ki fi nekkoon maire euh, ak mboolem li ci li ci aju yëpp ci ci aw jàmbat ak ci naqar ñu ne kooko tey moo war a nekkaat maire ndax élection yi euh, tànnin wi changé na léegi ki nekk tête de ñaan naan kii kat bu fekkee ne ñun amuñ sañ-sañu dindi ko fi it dinañu dina am nañu sañ-sañu ne euh, ànduñoo ak moom loola moo mooy mooy li xew bi ci des nag nga xam ne moom moo concerné waa Touba waa Touba euh, contrairement ak ñu ñu bari ci jàngatkat yeeg analystes yeeg chroniqueurs yi ak yenn intellectuels yi umpale gi umpale waa Touba dafa ëpp ndax éveil bi am éveil conscience bi am ci ci waa Touba ci wàll yëpp nag dafa dafa jéggi ñoom seen niveau même bi ñuy waxee Touba maanaam lépp loo xam ne ni ñor na leen. lu leen yitte lu ne dañ cay demee yitte demee ci Pastef demee ci fulla tey dañ koy xam bu wéree wéree wér doo ca dem loolu tax na ba li nga xam ne noonu la noonu lañ baaxoo ñun euh, di sant euh, régime saa su ne bu dee def na tali wala def na hôpital wala def na nangam naturellement dañ koy def mu mel ne que euh, léeg sax day mel ne obligation la ci nit waa Touba ñoom xam nañ ne amuñ benn obligation ci ci loola ndax lu fa war a am la maanaam obligation bi mi ngi mi ngi mi ngi féetee sax ci ka ko fa def ndax moom lañ fal jox ko jox ko euh, boole suñuy alal alalu réew mi impôt yeeg nangam jox ko ne ko defaral donc def ni mu koy defee Touba noonu la noonu la ko war a defee ci réew yëpp ci ci dëkk yëpp fu Sénégal nekk ci réew di fay impôt yooyu dafa war a am rawatina nag ñoom bi nga xam ne def gi du du du fees seen bët lool ndax yàgg gi ñu yàgg defal lool seen bopp ndax ba defal nañ seen bopp ay tali. defal nañ seen bopp ay hôpital defal nañ seen bopp ay école ba ñu ngi defal seen bopp université te booba gisaguñ gisaguñ état kon état bu ñëwee lu mën lu mënti defit du loola ñoom mooy tax mu déterminer seen vote ba tax na ñoom euh, à chaque fois bu élection amee la leen orienté ak la leen ni la leen la leen ni orienté ak la leen ni euh, tax ñu jël position ne euh, kii la ñuy voté wala kii la ñuy voté day wute lool ak liy orienté yeneen dëkk yi bi ci des mooy représentant politique yi nga xam ne ñoo nekk Touba. ñoom it amuñ benn emprise ci waa dëkk ba du ñoo xam ne nii dañ naan dañoo am yenn emprise yi wala euh, waa waa dëkk ba dañ ne déglu ci wàllu woowu loola loola loolu it amu fi bokk na ci li nga xam ne nii ko ku nekk Touba di politique coono ngay am lool ci ci loola ndax xëy na ñi lay investir mën nañu am yaakaar ci yow ci wàllu woowu waaye yow si bopp di nga xam ne ci wàllu politique euh, nit ñi dégluwuñ la. ndax jàpp nga ni meeru Touba bi am na légitimité ginnaaw bi nga xam ne téeméer boo jël juróom-ñaar fukki ak juróom-ñaar vote blanc bi de gagné na ko. waaw ndax euh, maire bi mën naa am légitimité waaw mu am pour mu am légitimité nag man di dama xaw a jaaxal tuuti ndax élection boo xam ne nii euh, juróom-ñaar fukki ak juróom-ñaar yépp dañoo voté euh, contre la dëgg-dëgg boo amee légalité it légitimité moom mënu ko am légalité bi aussi sax lu ñu war a xoolaat la dama xamul. lan la loi bi prévoir ci bu bu vote blanc bi rawee ndax comme eh, indi nañ vote vote blanc yaakaar na war nañoo prévoir ci euh, situation yu mel nii bu vote blanc bi euh, rawee lan moo war a nekk taxawaayu élection bi foofu ca Touba waaw lool daal xam naa ne moom légitimité moom moom mënu ko am waaw loolu nag ñu dinañu dina ñu yóbbu ci ñu xalaat dëgg-dëgg ci situation yu mel nii ndax moom maire bi nga xam ne moom lañ moom lañ fal tam am vingt 22 pour cent ndax dëgg-dëgg moom ci boppam warta mën a démissionner euh, wala bokk ñu digal ko mu démissionner ndax pour mettre en l'aise euh, aussi euh, sëriñ bi ndax gis nañ ne bi ñu commencé joxe résultat yi ba nga ni lu ne dégg nga ko ci Touba dañoo désavoué listu sëriñ bi Touba topp ñu ndigalu sëriñ bi yooyu yëpp lu metti la ci dégg ci déggin ñun murit rawatina ñun waa Touba ndax xam nañ ne demeewul lool demeewul noonu bu sëriñ Mountakha waxoon avant élection yi ne. Euh, votel leen Abdou Lahad Ka loo lu mën a naqari waa Touba ca moom ca saasa dañuy daal da leen daal di neex dinañ ko def kon nag comme loolu amul nag exprimer woon nañ ñoom euh, ni nga xam ne ni moom lañ moom lañ ko gisee kon yaakaar naa ne pour mettre sëñ bi en l'aise li ñu war a def moom mooy mooy mu démissionné moom wala ñu déglu ko ngir mu ngir mu démissionné. ginnaaw élection yi nan lañ mën taxawee ngir coow yi topp élection yi dakk biir Touba. waaw taxawaay bi ñu war a taxaw nag yaakaar na li ci jiitu mooy xalaat ci ci statut spécial maanaam ñu taxawal ay loi yoo xam ne nii euh, ci la ay élection di bu élection ñëwatee yu mel nii bu ko defee mën a prévoir yu baree bari buñ ci jaaree ñu mën a xam euh, loi bi lan la ci wax ak nan lañ war a taxawee ndax xam nañ ñu tubaab moom mm, statut particulier de fait la depuis euh, bi mu nekkee tubaab bu léegi nii ndax wax naa la ne soixante seize ba nag di si élection locale mi ngi am Touba naka jekk liste unique mooy am kon nag li ñu war a dox jëm ci mooy euh, véritablement ñu am statut euh, statut spécial loolu nag soo ko waxee ci Sénégal am na ñoo xam ne nii moom fañ ko yóbbu sori na lool. waaye di fàttali rek ne Touba moom ci Sénégal la bokk waa Touba ay sénégalais lañ ay sénégalais authentique lañu euh, te bëgguñoo doon leneen lu sénégalais. kon nag euh, te statut spécial am na réew yu mu am dëkk yu ñu am di dox di dox di muy dox normalement euh, benn problème amu ci régime bu ñëw nag la ngay def mooy di nga maslaag waatu Touba xëy na ba euh, situation bu posé nga xool ak say juriste ñoo def ba génn ca doo xëy na heurté waa Touba doo yàq seen sa relation ak ñoom ba sa régime jeex nga dem keneen ñëw loolu nag yaakaar naa dafa war dafa war a jeex moo tax dañoo war a xalaat dëgg-dëgg ci nu ñuy def ba ba statut spécial boobu boobu am eh, li fekk li booba am di am nag mm, ci élection locale moom buñ ci yeggatee yaakaar na liste bi nga xam ne mooy liste unique bu Touba eh, parti au pouvoir eh, wala benn parti di ko porté loolu moom yaakaar na mën naa mën naa ñàkk ndax candidat indépendant indépendant yi wala liste indépendante yi léegi sañ nañoo présenté wu ci élection locale bu njëkk loola sañuñ ko waaye ak ak réforme yu bees yi list indépendante yëpp mën nañoo demal seen bopp élection kon nag liste bu Touba nga xam ne dañ naan listu sëriñ bi la waratu ñor ñoo nangu benn parti di ko porté buñ ca yeggatee mu doon liste boo xam ne waa Touba ñoo koy porté seen bopp bu bu su boobaa bu tuddee listu Touba wala listu sëriñ bi. dina yell lool ci neex a dégg ci ñëpp ndax du benn du am benn couleur politique du am benn couleur parti.